simili bootu ci juróom-ñetti waxtu mbokk yi sopp safoo di tàttane xibaaru fii ci senegal serte bi la lañu dikk ak yéen ci xibaaru ay bés bi. xibaaru ay bés bi dañ koy doore ak li nga xamante ni moom moo di. njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall moom mi leen nag amal lancement officiel bi nga xamante ni moom la ñu duppee lii di BRT BRT nag di bis rapide transit loole nag ñu ko doon amal foofulee ci diwaan bu Géejawaay li nga xamante moom moo di BRT nag lii di projet bi daal toll na ci ñetti téeméeri milliards yi nga xamante ni nguur gi dana ko def ci bu loolee ngir fexe daal ba lépp li nga xamante ni moo di dem bi ak dikk bi. mën a yomb fii ci euh, ndakaaru dinañ ci dikk ci biir xibaar yi ni mu gën a yaatu ak leeral yëg mbisaan na leneen ci biir xibaar yi euh, bokk na ci li nga xamante moom moo di waajtaayu euh, gàmmu bi euh, ni ngeen ko xamee nag saa su nekk bu desee ay bës lu jëm ci wàllu gàmm gi li nga xamante ni moom moo di burdu danañ ko amal ci yenn ci ay zawiya yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Sénégal loolee tax nag niki tey ñu doxantu ba fi nga xamante ni moom moo di zawiya bu maam El Hadji Abdou Aziz nekk foofu foofulee ca Médina loole nag ngir fexe daal ba xamle leen ak li nga xamante ni moom moo di lii di gàmm gi foofu lay sax fekk nañ fa ki nga xamante nii nag moom moo di euh, Mansour Sy Makhtar di doom ci ki nga xamante ni moom moo di Seydi El Hadj Malick Sy dellusi na ci solos li nga xamante ni moom moo di gàmm dinañ ci dikk ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ak El moo Mamadou Jigal ba tey ci li nga xamante ni moom moo di xibaar yi li koy euh, ndarkeppe nag bokk na ci li nga xamante ni moom moo di euh, ki nga xamante ni moom leen di xamle nit ki tey loole nag bokk na ci ñett ci ay footballkat yi nga xamante nii ay doomu sénégalais lañ bii nag nekk bu yees ñuy eh, bokk ci li nga xamante ni moom moo di équipe nationale bu Sénégal ñoom ñi leen nag nekk ay ñetti ndaw yi nga xam ne daal ràññee nañ leen bu baax ci lu jëm ci li nga xam ni moom moo di wàllu eh, tàggate yaram eh, bokk na ci nag di Mohamed Nabi Sarr nekk ab défenseur di tàggatoo foofu la ca Charlton Angleterre. bokk na ci tamit kii di Baba Thiam di sociétaire bu Kassim Passa moom mi la nag nekk ab attaquant. ak ki nga xamante moom moo di Moussa Ndiaye nekk révélation bu bees bu ivin nekkoon sax lii di meilleur joueur bu CAN U20 ak bu IFOA loole moom mooy bural xibaaru ay bés bi neskis bàkk bi daanañu dikk ak génn ci faram fàcce bi naaw bañ leen nuyoo di leen ziar bu baax a baax ñu door xibaaru ay bés bi ak li nga xamante ni moom moo di ndorteelu li ñu duppee bis rapide transit loole nag njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall. moom moo doon teewee li nga xamante ni moom moo di ubbite bi ñu ko doon amal foofulee ca diwaan bu eh, géejawaay lu tollu rekk ci ñetti téeméer ci ay milliards ci kopparu Sénégal nag fas yéene nañ ko dugal ci boobule projet loole loolee nag ngir fexe daal bu lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi mën a yéwén fii ci diwaan bu ndakaaru leereel yi ak mbisantin jiitu réew mi Macky Sall liggéey wi senegal war a am kon bus rapide transit BRT fii ak ñaari at bis yooyee seen lim nara toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent war a daw diggante Géejawaay ak Petersen ci yoon wi nga xam ne du ko bokk ak kenn di romb itam fukk ak ñeent ci ay commune mën a yóbbu bés bu ne ñetti téeméeri junni passager limum trajet bu mu war a jaar nag di fukk ak kilomètre yi nga xam ne dina ko daw ci ñeent fukk ak juróomi simili ab entreprise chinoise nag lañu dénk liggéey wi koppor guñ ci nar a dugal toll ci ñetti téeméeri milliards yi nga xam ne ci gafagab état bu Sénégal banque mondiale ak banque européenne d'investissement lay jóge BRT nar a doon nee nañu ay bis yu méngoog jamono li tax nag nguur gi jël ndogalu indi ko senegal mooy yombal dem geeg dikk gi yokku ci ne duñu jural lorange gu bëri alam gi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ du ñu dénk dem geeg dikk gi cant ak ngërëm ñeel ko moom misaan cin ci leeral yooyu la ci pàcc boobu la ñuy desandi ba tey ki nga xamante ni nag moom moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi di Oumar Youm moom mi la nag yëkkati ci ay kàddu ci boobulee ndaje nee na daal li nga xamante ni moom moo di bis rapide transit yi di BRT dana fexe ba lépp nga xamante ni moo di ak dem bi ak dikk bi gën a yees wante yi fexe daal ba lépp li nga xamante ni moom moo di embouteillage yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy jànkonteel ci diwaan bu Ndakaar mu nekk lu mucc ayib ñu teewlu ci ki nga xamante ni moom moo di Oumar Youm ci micro Mbisantine BRT bi dafa nekk xeetu transport urbain boo xam ne day dimbale askan bi ci lu bari day dimbale askan bi ci maanaam li ñuy woowe embouteillage day dimbale askan bi ci li ñuy wax pollution de l'air day dimbale askan bi ci jàppandal dem bi ak dikk bi BRT bi bu ñëwee incha allah ku doon jógee Guédiawaye dem Dakar nga xam ne da ko doon def ci quatre-vingt-dix minutes mm-hmm. bu BRT ci koy réduire bi temps déplacement da koy réduire bi da nga koy gis ne day xàll yoon boo xam ne kaar yi rek ñoo fay jaar kon du ñu xam embouteillage te ci biir kaar yi am na kaar yoo xam ne dañu nekk ay ay bus express maanaam bus yoo xam ne du ñu taxaw arrêt bu nekk am bus omnibus yoo xam ne arrêt bu nekk la taxaw loolu aussi xeetu jàppandal la maanaam kon ki nga xam ne mooy passage bi mun na tànn ci ay busam bu dee dafa yàkkamti ban lay jël bi taxaw kaar yëpp bi taxaw ci arrêt yëpp wala ba nga xam ne day taxaw ci ay arrêt yu néew. boole ko nag buy daw euh, fumée bu bëri bi ñu xamee ci transport nuisance yu bëri yi ñu xam ci transport mooy bruit bi daf BRT bi day ñëw wàññi ko parce que BRT bi li ñu bëgg mooy dafay nekk ay moyen de transport écologique boo xam ne du am émission de gaz à de ser bu bari mais aussi euh, dafay jàppandal ci wàllu confort ci biir am wifi am confort am climatisation. mooy li nga wax rek comme yow mi jóge Europe xam nga kaar yi nekk foofu di transporter ni ñu mel yéene boobu la président am ne manit sumay askan am nañu droit wu am moyen de transport yu mel noonu moo tax kaar yu mel ni yu mucc ayib ñu wax ci leneen ak commune bi di Grand Yoff ñoom ñi leen nag daal danañ am ab assainissement bu yees loole nag ak kuréel gi nga xamante ni moom la ñuy duppee ONAS yor lépp lu jëm ci wàllu assainissement bu Sénégal moo taxawal ab benn projet bi nga xam ni daal dana fexe ba diwaan bu Grand Yoff lépp lu jëm ci wàllu ndox mu bon at li nga xamante ni moom moo di assainissement moo mucc ay foofule ca diwaan ba ngir fexe daal ba jànkonteel ak jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi fay am di yenn ci ay feebar ak yu ni mel ñu mën ko faagagal foofule ca diwaan bu Grand Yoff Abdou Khadir Coulibaly moom moo ñu defal ab leeral ñu teelu ko. ngir saafara jafe-jafe assainissement ci diwaan bu Grand Yoff office national de l'assainissement du Sénégal dal di taxawal ab projet ngir gën a dooleel système d'assainissement eaux usées yu Grand Yoff projet bi nag door na loolee tax ba directeur général bu ONAS di Lassana Gagny Sakho amal ab visite de chantier ngir saytu tolluwaayu liggéey bi projet bi nag dina tax ba gox yi ci diwaan bu Grand Yoff mën a am système d'assainissement bu mucc ayib quartier yu mel ni euh, fii Euh, yu mel ñu nekk ci Grand Médine yu nekk ci Patte yu nekk ci zone de captage yoo xam ne mësuñu am assainissement ñu mën a am système d'assainissement eaux usées euh, nit ñi nag xam nañ ne seen loxo jotul seen diggu ginnaaw na seet ak conseil de quartier bi wax na ko sànq naka lañ ñu mën a yombalee pour ñu mën a am branchement ñoom ñëpp. gannaaw ba royaume bu Espagne daal di jéggal réewum Sénégal bor bu jege ñaari milliards koppar googe la nguur gi jow ci biir projet nga xam ni. bu sottee dina sàmmonte ak lu ñeel atteinte objectif de développement durable yi. bii projet nag euh, dañ ko am ci li wax annulation de dette bor bu ñu baal Sénégal royaume d'Espagne euh, deux milliards la euh, te dina durer ñaar fukki weer. ñu ngi seet ak entreprise yi pour ñu gën a baral seen loxo liggéey bi gën a gaaw. am mooy atteinte ODD e yi waaw lii ci la bokk mais du fii rek am ne leen quartier yu Dakar yu bëri yu am ay jafe-jafe. Euh, bu ñu jógee fii nañu saytuwaat feneen fi am jafe-jafe seen naka la ñuy fajee mbébatu askan wi. ak jafe-jafe yi diwaan bu Grand Yoff di jànkonteel ci wàllu assainissement tax ba askan wa di rafetlu bu baax bii les projets ndax leen teggil coono yu bëree bëri. xanaa kontaan ci rek boo amee quartier bu mel nii mu wóor la ni fukki nit ñu ne kenn ka rek moo ci am égo wala kenn ko sax amul égo te égo wax dëgg yàlla dana indi cat dana indi wér-gu-yaram dana indi bu ñu indilee nii nag duñ mën lu sant yi ñu koy indil ñu ñaan nag projet bi yal na egg ci eggaaw yu jàmm. lu toll ci juróom benn gox dinañu bénéficier ci bile projet muy siti millionnaire HLM Padoua Arafat Xar Yàlla zone de captage ak HLM Grand Yoff ci ab superficie bu toll ci téeméer ak fanweeri hectare liggéeyu projet bi nag tàmbale na ci alxamis gi fanweeri fan ak benn ci weeru octobre atum 2000 jaajëfal ko bu baax moom Abdou Khadir bali ñu wax ci wàllu politique ak li nga xamante ni moom moo di parti réew mi. Euh, loolee nag gannaaw ba élection présidentielle yi weesoo ak léegi ki nga xamante ni moom di seen njiit di Idrissa Seck. dafa mel ne daal ab tekk-tekkaaral la ñu nemmeeku ci euh, moom loolee nag tax ñenn ci askanu Sénégal sax di laaj lan moo waral tekk-tekkaaral boobu wante nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di Mori Gueye jiite ndaw yi parti réew mi nee na daal tekk-tekkaaral boobu li ko waral du sax ñàkk euh, nekk ci li nga xamante ni moom moo di euh, soxlas askan wi wante nag Idrissa Seck ku ko xam ne daal xam ne kàngam la ci wàllu politique te xam na bu baax nan lay doxalee lu jëm ci wàllu politique loole nag mu ko doon xamle gannaaw mu doon tontu ay laaj ci émission émission bi nga xamante moom la ñu duppee Jokko ñu teewlu ko. du tekk tekkaaral dafa fekk ne politique dafa am nu muy doxee. Mm-hmm. politique mënoo ko def atum lëmm. maanaam mm-hmm. trois cent soixante cinq jour sur trois cent soixante cinq. Mm-hmm. dafa am temps pour politique. am temps pour liggéey am temps pour xalaat am temps pour togg. actuellement bi ñu jógee ci présidentielle bi ak léegi ba yaakaar naa ni euh, soriwul. Mhm. mois de février la woon. Mhm. actuellement ñu ngi presque début novembre. Mhm. kon mën naa wax ne. dara ñoroogu fii ba ñu koy màcc. peut-être askanu Sénégal dañoo xër ci président Idrissa Seck. am cofeel ci moom cofeel bu rëy rëy rëy boo xam ne. bu ñu toogee sax semaine dégguñu ko. mën nañoo jàpp ne dafa bàyyi terrain bi wala dafa teg tekkaaral. beneen mbir bi aussi mooy. lu bëri ci askanu Sénégal dañuy juwaatle yëngatu ak yitte yëngatu mooy di coow rek waaw lu jot nga def euh, lu xew nga dem loo bëgg a wax wax yitte nag mooy li nga xam ne moom moo am solo maanaam da bàyyi ba mbir jot nga am loo ci mën a def loo xam ne mën naa jural njariñ askanu Sénégal nga dem ci loolu et je pense que euh, sunu président en tout cas ci registre boobu la inscrire moom homme d'état la mosul déserter terrain am na expérience état xam na ni ñuy politiquer moom aussi moo maîtriser calendrier de communication contrairement à certains leaders politiques je pense que ku xam Idrissa Seck xam ne ku am tempo de communication la ku xam fan la war a waxee la te ku xam aussi la mu war a wax la ay fan des ci wàllu li nga xamante ni moom moo di euh, gàmmu gàmmu nag nekk euh, bés bi nga xamante ni nag dañ koy célébrer di euh, juddub kii di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam loolu nag tax nit ki tey Sénégal set nag dama leen foofu lee nga xamante ni moom moo di Medina. ci zawiya mam El Hadj Abdou Aziz ngir nag dal uh, teewe li nga xamante ni moom di burdu bi wante it ki nga xamante ni moom di imam Mansour Sy uh, moom mi la yëkkati na fa ay kaddu ngir nag dellusiwaat ci li nga xamante ni moom moo di solos uh, boobule bés di gàmmu dégg ko suñu ndaw di El Hadj du Jigal ñu teewlu ko. fan yu néew dox suñu digganteeg lii di gi. di màndargaal di dugg tedd ki seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem kër diine yi ci réew mi di ko waajal ànd ceeg mbokki jullit yi rawatina ñi nga xam ni ñooy taalibe tijaan yi ndaxte ku ni gàmmu sa xel dina dem ci dëkk maam Seydi Alaaji Malick si ba moo waral ñu defab doxantu ci zawiya bu mag bi nga xam ni moom lañu dippee zawiya maam Abdul Aziz Sy Dabakh nekk fii ci Médina sëriñ Mansour Sy Makhtar lii lañu dénk ci li waral cosaani gàmmu gi gàmmu sunna la am na ñu ne sunna la am na ñu ne bidaa mustaxsana la waaye sunna moo gënoon ndax yonent bi daana màgg ak bisu anniversaire te yonent bi lépp lu mu daan def rek loo xam ne ni yàlla digalu ko ko maanaam masdar ba nekkul alquran sunna la moom daana ko màgg saxaaba yi daa lañ ko def fa tabaarakallahu bu monaan see xaj maa ñëwee nag am na ñu ne sax avant moom am na ñu fi daan gàmm ci mag yu baax ñi fi nekkoon loolu duñu ko wet waaye nag cër bi mu am moom ci gàmm ak cër bi mu am ci burda moom ci moom rek lañ ko gisee ci suñu xam-xam bu gàtt waaye ku ni gàmm sa xel dina dem si dem beeg dikk bi lenn ci sëfoor yi ñu ngi fas yéene yi yenn dëkk diine yi ëmb réew mi àdduna ñu jëm ci xew-xew bi ñu déglu leen waaw yoon bi moom bàyyi nañ ci xel baax mooy def nank gàmmu ci jàmm ñëw ci jàmm rek loolu lañ ci loolu lañ ñaan yàlla subar yëpp ñu def nànk yóbbu ñu ci jàmm dool ci xeexoo bi ñu toll saa yu amee pëccëxoo bi dana bari lool ba tax na askan yu war a bàyyi xel ci ñiy gàmm ak ñiy rasteem seeni jëmukaay benn la waaye seeni yéene ak seeni mébét sore na lool. équipe. cant ak ngërëm ñeel ko moom euh, nga xamante ni moom moo di. El Hadj Mamadou Jigal eh, ba tey ci li nga xam ne moom moo di xibaaru ay bés bi eh, ni ki nag lu jëm ci wàllub nataalu bés bi ñu leen di xamle ak ñetti doomu ndaw Sénégal di ay footballkat eh, ñoom di leen nag Aliou Cissé woo leen ci list bu yees bi nga xamante ni nag woote na ko ci ñaari jongante yi nga xam di war nañ ko amal diggante Sénégal ak kii di kongo ak ki nga xam ne ñoom ñoo di Suède yi. loole nag bokk na ci Mouhamed Nabi Sarr moom mi la nekk nekk ab défenseur. di jouer foofu lee ci Charlton ci Athletic Club bu nekk foofu lee ci deuxième division bu Angleterre euh, bokk na ci tamit ki nga xam ne moom moo di Baba Thiam nekk foofu lee ci Kassim Passa nekk ab attaquant. Euh, bokk na ci tamit ki nga xamante ni moom moo di Moussa Ndiaye di révélation bu euh, ren bi nga xamante ni daal am na ab taxawaay bu am solo boo xam ne def na ko ci équipe nationale u ak équipe nationale locale moom mi lay sax la ñu taboon mu nekk meilleur joueur bu CAN U20 ak li nga xamante ni moom moo di tournoi UFOA e ñoom ñi lay nag Abdou Khadir Koulibaly defal nañ ci gëstu du mu gën a yaatoo ñu teewlu ko. équipe nationale bu Sénégal am gan yu bees ki ci njëkk di Mohamed Nabi Sarr nekk doom ci Boubacar Sarr Locotte nekkoon fi ancien international moom Nabi Sarr nag mu ngi judd ci fukki fan ak ñett ci weeru août atum 1993 ca Marseille. moom Nabi Sarr nag nekk défenseur ci Athletic Football Club nekk ci deuxième division anglaise xarañ lool. moom nag bokk na ci sélection française yu ndaw yi ci yoon yu bëree bëri waaye mel na ni moom Naby Sarr Sénégal moo ko gënal mu am lool mbégte daal di bokk ci équipe bi nga xam ne bokk na ko ak Sadio Mané ñu bëri nag ci génération wam rawatina ki nga xam ne mooy poul Paul Pogba Raphaël Varane wala bokk Florent Thauvin dal dinañu ànd gagné coupe du monde des mois de vingt ans ci atum 2013 ñoom ñooñee mu bokkal génération nag dal di nañu gagné coupe du monde atum 2018 waaye moom Naby Sarr jotul woon am chance ngir bokk ci équipe nationale française A ci atum 2014 ci la dal di quitté Lyon ngir dem fële ca Sporting Portugal balaa muy dëgmal Red Star yi ñaari at ca gannaaw ga ci la dal di dem fële ca Charlton. Naby Sarr bokk ci équipe nationale bu Sénégal fas yéene wëyal jaloore yi nga xam ni ña ko fi jiitu daf nañ ko fi keneen ki nga xam ni bokk na ci équipe nationale bu Sénégal di Mame Baba Thiam moom nag bokk ci nouvelle liste bi Aliou Cissé daal di tëral joueur sénégalais boobee nag mu ngi nekk attaquant ci Kassim Passa di di ancien club bu mbay Diagne mu toll ci ñaar fukki attaque juróom-benn attaquant sénégalais boobee daal di nay joué lu yàgg ci diwaan bu Italie. rawatina ci Inter de Milan ak Sassuolo bi nga xam ne mu ngi bokkoon ci formation junior bi Mame Baba Thiam bokk na itam ci sélection U19 bu Juventus jot na bokk itam ci yeneen i équipe yoo xam ne nekkuñu ci diwaan bu Italie bokk na itam ci yeneen équipe fële ci diwaan bu Belgique foofe nag jotoon nañ ko fa abal SV Zulte Waregem diggante 2015 ak 2016 waaye itam fële ci réewum Grèce ak PAOK Salonique diggante 2016 ak 2017 ki fi nekkoon joueur bu Ajman club nekk ca arabi Saoudite ci saison bi la dal di dem ca équipe bu Kassim Passa moom nag jot na dugal lu toll ci fukki bi ak ñett ak ancien clubam waaye itam jot a def juróom benni passe décisive ci ñaar fukki match ak juróom benn moomee nag juddu fële ca diwaan bu Gindile nekk ca région bu Louga ci teel la dal di jóge fii ci diwaan bu Sénégal dal di dem ca Europe boobe mu ngi am lu toll ci fukki at ak ñeent beneen joueur bi bokk ci équipe national bu Sénégal mooy Moussa Ndiaye nekk révélation année bi tax ba Aliou dal di koy récompensé moom nag di ab jeune défenseur d'excellence foot Moussa Ndiaye bi yoon mooy bu njëkk bi nga xam ne convoqué nañ ko ci équipe nationale bu Sénégal A ngir mu jouer match de qualification bu Coupe d'Afrique des Nations diggante Sénégal ak réewum kongo waaye tam ak l'Eswatini convocation boobee nag mu am ci Aliou Cissé mel na ni ab neexal la ci saison bu mucc ayib bu mu amal ak équipe nationale locale U20 naam ne nag xale la toll ci fukki at ak juróom benn teewul Moussa Ndiaye bokk na ci joueurs yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci saison bi ci équipe nationale U20 moom nag nekkoon ku fës loolu ci xarañte ci mondiale U20 bi ca Pologne atum 2019 nekk nag joueur boo xam ne mën na jouer poste yu bëree bëri défenseur central boobee nekk meilleur joueur bu CAN 2019 ci catégorie boobee ak ci coupe UFOA nekk nag joueur bu xarañ ci wàllu technique jeune défenseur boobee mën football lool comme ni ko sortie de balle yi muy def dal di koy témoigner ci loolee sax Sénégal nekkul sax réew mi nga xam ne dal dinay am mbégte loolu ci musaa Ndiaye ndax France football itam di quotidien français bi dal na koy boole ci joueurs yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci mondial U20 bi quotidien boobee nag dal di dëggal monde football bi ne kii de di Moussa Ndiaye ab talon boo xam ne la buy door door la nekk sociétaire académie d'excellence foot moom nag umpalewu ñu ne bokk na ci joueurs yi nga xam ne ñoom lañu ñu gën a tàmm ci équipe national A ak ki nga xam ne mooy jali ko Bali njaay Moussa Wagué Ismaïla Sarr Crépin Diatta wala bokk Diaw. ci ñett footballkatu noonee sax moom moo buural xibaaru ay bés bi cant ak ngërëm ñeel bu baax waa rédaction yi jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal bu baax waa régie yi nekkoon ci gannaaw ba mën leen a dégtal li nga xamante ni moom moo di xibaaru ay bés bi lii kottu képp lañ amoon yéen a jotal leen ko ci xibaaru ay bés bi di leen jox dig daje. ajjuma ak jàmm di eh, sant di gërëm yi nga xamante ni moom moo di eh, yaayaa mi jàppoon ci xibaar yi moom tamit ba mu yemb jaajëfal leen bu baax li ko képp la amoon yéen a jottale ko ci xibaar ay bés bi di ñaan yaakaar na am ne sene ci yéen ba anam bu mu gënee di sant di gërëm bu baax yàlla mi nga xamante ni moom mooy eh, borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm ci fépp ci ñëpp tuur ko ci askan suñu gaal jërë ngeen jëf